tey nekkoon bés bu màgg ñu jagleel ko ministère de la formation professionnelle de l' apprentissage et de l' insertion ñu tàmbalee ko si dajeek waxtaan bi nga xam ne ki ko doon am amal mooy euh, coordonnatrice projet 1000 femmes wax si mbirum autonomisation de la femme mooy nooy fexe ba jigéenu Sénégal mën a wéyal boppam ci jëriñ boppam jëriñ askan bi taxawu njabootam. ci li nga xam ne état Sénégal def na ko en place ngir accompagner leen te pàcc bi ñu si intéressé nekk ci loxo ministère de la formation professionnelle te moom mu koy doxal. ginnaaw loolu nag ñëw nañ fi fekk nañ fi lépp li nga xam ne ministère mu ngi koy doxal te ndaw bu bëggee yëngu ci formation soo ñëwee fii information yi nga soxla di nga ko fi fekk dinañ la teg ci yoon boo xam ne soo bëggee tàmbali jàng dinañ la teg si yoon bi nga xam ne di nga mën a tàmbali jàng boo xam ne au bout de six mois mën nga am sa diplôme soo sam njàng bu àgg ci doctorat te jaaroo école tamit dinañ la teg ci yool boo xam ne bii di nga mën a àgg fa nga bëgg àgg ci sa jàng